ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dara dalal ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci vidéo boo xam ni yaakaar nañ ni ñu rek la intéressé waaye bépp sénégalais buy tànn te am devoiru xam kiy dagaan baatu askan wi ñaata la am ci koom mbaa am-am mu bari mu néew li ko waral mooy benn pour xam ndax kookee carrière am ak jaar-jaaram mënees na ko may alal joojee mu am. maanaam ndax sàcc la beneen bi pour président boobee bu demee ba jeexal ñu mëna méngale li mu déclaré woon ne amoon na ko ca bañ koy fal lan moo ci dolleeku waat gannaaw ba mandaam jeexee est-ce que dafa profité ci diir biñ ko tabee président ngir jéem doon milliardaire am déet ñu gis ni kenn ci fukki candidat yi juróom-ñeent yi muy Bassirou Diomaye Faye moom fësal na negi ni démb li ko yàlla dénk ci moomeel mo xam kër terrain ba ci xaalis bi mu denc ci ay compte bancaire am ak lépp nim ko amee muy nag sujet boo xam ni ñun daf ñu ñor lool ndax bu ngeen fàttalikoo ci vidéo biñ defoon ci Macky Sall doon xayma li yor ci jamono biñ koy fal président maanaam bi muy dooro a toog tàmbaleegul mi ngi tolloon ci ay milliards yi milliards ci diru fukki at képp yu mu liggéey ci état mu leer la salaire am ak avantage may ko fi mu jëg ñun mooy nguuram li ci gën a fës mooy luubal détournement ak corruption parce que loolu la xam durant carrière am gépp ñun foofu lañ ne woon sénégal képp ku ñuy falati président war nañu gëstu d'abord dir bi nga tàmbalee liggéey loo yor ci ay moomeel ngir ñu mën a mesurer ndax ku jub nga am ndax da nga doon profito ci état bi nga newoon doon luubal 18 millions sénégalais yépp bokk étape bi ñu tollu nak mennam Bassirou jomay fay mo defugum déclaration de patrimoine am en tout cas ci li ñu xamagum ñun ci waxtu bi ñuy def vidéo bi ñu fassiyene ko nak nag càmbar méngale ko la liggéey ndax yenu na manam det deglu len mo bu baax ci li meuna wax ni parce que fi Sédhiou la koy waxee Sénégal yëpp dégg ko aduna yëpp dégg ko loxo yi ay loxo yu set lañu bokkuma ci fonctionnaire milliardaire yi laaj réew mi pour gën ñoo dugal ci ndóol di gën a seen bopp te lii dinaa ci andi firnde gu leer ci semaine bii début de semaine bii dinaa wax sénégalais sama alal nu mu toll muy sama déclaration de patrimoine ku ñeme na def ku mën na def moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na mi ngi tàmbali liggéey ci bànqaasu état bii di impôt domaine en tant qu'inspecteur depuis le 17 octobre atum 2007 boobaat léegi def na daanako fukki at ak juróom-ñaar 17 ans yu manqué ay weer balaa ñuy ñëw ci liggéeyam boobee ak possibilité yi ka inspection yi mu daan def mayoon loolee mënoon koo def milliardaire ci diir bu gaaw te demeewu ni dañuy taxaw d'abord ci li mu déclaré ak ñaata la am ci ay bor dañ koy dóori ci wàllum patrimoine foncier bi suuf si Bassirou Diomaye Faye jotaam depuis ba mu tàmbalee liggéey ci atum 2007 en 2009 mu un terrain bu en de Thiès 200 mètres carrés valeur bi 700 000 francs en 2017 mu acquérir un terrain de 80 sur 40 bu valeur bi 3 millions en délibération En 2022 mu possède un terrain de 4,3 hectares bu jëm ci valeur bi 15 millions 50 000. même terrain bobu mu investir ci 29 millions 600

waaye itam ci lenn li mu leboon banque yi di UBA ak bisis te mu jot ko fay ba mat sëkk. kër googu nag ñaata lañ ko mën a xayma ci jamono yi ñu toll Bassirou Diomaye Faye ne jotagul jël ay experts yu ko estimer valeur dëkkuwaay boobee ñaata la maanaam boo jëlee suuf seeg tabax bi lépp lu mu koy dikkee. lu jëm ci wàllu oto. Bassirou Diomaye Faye ne am na benn Ford Focus année 2012 boo xam ne mi ngi ko jënd atum 2019 en occasion 6 millions 500 mille am na itam benn Ford Explorer Platinum bi mu jënd en 2022 te jëg bi toll ci 19 millions waaye ñaata la Bassirou Diomaye Faye denc ci ay compte bancaire am moom Bassirou mooy wax ne boo demee ci comptam bi nekk UBA ba ci jouru 19 mars 2024 bi ñu weesu mi ngi fa am 3 millions 276 bo demee ci banque bi di BICIS bi nga fa denc 786.782 francs CFA. waaye Bassirou Diomaye fay ne amna itam ay bor mi ngi lepp lu tollu ci 30 millions banque bii di UBA depuis le 5 septembre 2022 Amel na également wa Bisis 8 millions bor bo xamné mi ngi tambali le 22 août 2022 diggante doomi adam ak doomi adam aussi. Bassirou Diomaye fay ne benn xaritam lebal na ko 10 millions ngir lu jëm ci wàllu tool bi muy bàyyee. lii lépp nag buñ ko tënkee lan lañ ci mën a jàpp mooy Bassirou Diomaye Faye gannaaw 17 ans fukki at ak juróom ñaar yi mu def impôt domaine moomeelam boo ko dajalee mu xam wàllu suuf ak oto mi ngi toll ci 73 millions 850 mille. sans compter kër gi mu dëkk te nga xam ne évalué guñu ko ñaari compte bancaire am yi boo ko boolee quatre millions soixante-deux mille cent vingt moo ci nekk li mu amee ci bor boo ko dajalee mu toll ci quarante-huit millions lii nag liñ ci mën a jàngat mooy Bassirou Diomaye Faye buñ ko doon classé mën nañ ni ci cadre état yi gën a la bokk maanaam ci gàttal Bassirou yorul buñ dee nag yorul comparé wuñu ko ak sénégalais lambda bi taaba taaba te amaana bu amoon li Bassirou Diomaye Faye am ak néew sant yàlla waaye baatu yorul boobu noonu ñu ngi koy natt ci ay naataangoom yi mel ni moom nga xam ne dañoo jaar impôts domaine wala nekk fa ba tey di def liggéey bi muy def moom te tey boo jëlee li ñu denc ci seeni compte bancaire yor ko ci ay immeuble ci quartier yi gën a cher Dakar di ko loué ay milliards et milliards la misaal bi leen di jox mooy kaaw fonctionnaire milliardaire bi gën a siiw Sénégal te muy Amadou Ba daan liggéey fi Bassirou Diomaye Faye di liggéeyee muy impôt domaine laata muy doon directeur wala di occuper yenn responsabilité yi moom Amadou Ba mooy wax nee na moo ëppoon li mu doon am seen chef bi leen jiite. Sonko en tant que syndicaliste jamono yooyu moo ko doon kaas moog ñi mu àndal yow en tant que directeur général nga signé. du la maa ko signé. parce que système bi c'était un système inégal Moi, j'ai profité de ce système Moi, j'ai commencé avant syndicat bi di mais attends tu dans daan naa mon sama directeur général mais may moi j'ai appelé mon sama directeur général li may fayeeku man dans naa am ay trimestres je pouvais payer peut-être quatre fois ou cinq fois mon DG. le système bi Amadou Ba di wax waaye xuusi ci bu baax mooy lan impôt domaine. bu weesoo yenn avantage yi dafa am benn xeetu sàcc bu inspecteur yi ñeme yàlla yi di pratiquer pour doon milliardaire ci benn at wala manam at maanaam lu ñu wooyee fii Sénégal tekki bu gaaw maanaam da ngay dem ci benn entreprise pour defal ko lu ñu redressement par exemple benn këru liggéeyukaay day fay impôt 10 milliards état bu Sénégal ci at bi en tant qu'inspecteur nga war a dellu ca entreprise ba vérifier seeni compte li dugg ak li génn chiffre d'affaires bi boo ci génnee salaire ak charge yi bénéfice net bi nu muy toll gannaaw gëstu yooyu nga gis ne ndeke entreprise bi waru woon fay 10 milliards état bu Sénégal waaye 50 milliards la waroon fay cay impôt léegi yow boo dee inspecteur bu bëgg xaalis lool te ñeme yàlla da ngay nangu entreprise bi corrompre la benn 2 milliards pour nga bàyyi mu jàll boo demee déclaré ni lépp jaar na yoon Sénégal ñàkk ci 40 milliards yu waroon dugg ci budget lépp nax saay ndax lan ab inspecteur des impôts la ñu corrompre benn sagaru 2 milliards mu tay la avenir u ay millions de sénégalais des dizaines de milliards donc bu ngeen déggee un fonctionnaire milliardaire rawatina ñi nekkee impôts domaine doonoon fi inspecteur wala directeur comme genre Amadou bay yi yoon bii lañu jaar ab entreprise buy defay bénéfice suñu biir réew dañuy yoreel ay milliards surtout entreprise yi bàyyi ko bitim réew benn Amadou Ba ñëw effacer lépp bul xam nag ñaata lay encaissé ci ginnaaw moom la Ousmane Sonko doon leeral ci première déclaration am gannaaw bañ ko libéré moom ak Bassirou Diomaye Faye parce que ñoom ñoo nekkandoo woon ak Amadou Ba ci Impôts et Domaines xam nag la ñenn ñi di sàccee xaalis bi Sénégalais yëpp bokk. Amadou Ba mënuñoo yab de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël ma ne ko tegal ci suuf. jiite na direction générale des impôts mayor syndicat yàgg naa laal lu mu warul laal. man vérifié naa entreprise bindu ko ay milliards mu laal ko bugg ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko yow te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ngeen ko jox réew mi balaa may dee ñu ne compétence compétence su lan expérience expérience la lan randal alalu réew mi. donc genre pratique yi Ousmane Sonko di expliqué moo am impôt domaine. mooy waral doomi aadama di fa def benn ñaar ñetti at nekk milliardaire tabax ay immeuble diggu ndakaaru te du leb banque du xaalis buñ ko may mbaalu mu liggéey kon bu ñu gisee ku fa def 17 ans fukki at ak juróom-ñaar ñu seet ay compte bancaire ñaata moo fa nekk ñu ne 4 millions 62 mille 928 francs kooku mën nañu dëggal maandu téem ci alal gi Sénégalais yëpp bokk. et dañ koo déglu moom Bassirou Diomaye fay ci entretien bi mu accordé waa Séné People ci lan moo tax nekkul milliardaire comme yenn ci ay moromam yi jaar impôt domaine mais ñu déglu li mu tontu foofu. kon tax seetlu bi tey loolu ñu leen gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngit jëf.